bi mooy suñ sixième étape mooy suñ sixième étape. parrainage yi ni ñu koy wéyale si yeneen gox day wute nag fii fii nag population bi ñoo volontaire ngir joxe seen i ay pièces ku ñu koy jébbal kooku di jili bay kan mooy jili bay di nag koo xamante ni dafa leen amal njariñ si koñ bi mu di courant di ndox jafe-jafe bu nu mën a am si wàllu social moo cay taxaw. moo taxit ñoom ñu jóg organiser wu am pôle yu bari juróom-benn guddee ngi nii saa suñ dogee ba noppi fii la ñuy tase ñëw nag muy góor di ay jigéen jeunesse bi ñëpp ay jóg ba si mag ñu troisième âge jublu si ngir nag gunge ko si liggéey bii. tam boo ñu woo ngor la ñuy def ndax Serigne Mourine Fall borom Touba Fall ak Mbar daana wax naan as gor nay sàmm waawam ndax boo nee waaw dootoo mën a wax déet jiili dootuñu wax déet ba mukk ñoo ngi sa gannaaw. bu buñ ko amee bu ñu jaaxlee sunu courant coupé dañ koy woo. buñ toogee ñu war noo coupé dañ koy woo bu sunuy doom feebaree dañ koy woo bu sunuy doom dugalee ci luxo maara day taali dañ koy woo bun feebaree dañ koy woo aw moom lan aw fu mu awut man Khady Dieng aw ma fa sunu carte yaa ngi nii kenn nelewut te feeg suba bu nu ñibbi waxul ñibbi leen duñ ñibbi kenn mënu ko ci 18 safar kenn mënu ko ci Daaru si kenn mënu ko ci pencum Serigne Modou mbake mii di du satub sëñ Abdourahmane mbake lu mu war a def rek mi ngi koy def mi ngi tabaxi jàkka mi ngi dimbali doomu aadama yi tëdd ci hôpital yi mi ngi dimbali ne ci prison yi. jili xoolul ku ko bañ xoolul ko ko bëgg tubaarkàlla di wax seen nag di tawal ñëpp. ak yitte boo mën a yitte woo muy sa doom di sa bopp di sa problème mu kër rek lu mu a doon ma ngi cay dox lam ca war a dox seetaanu kenn daal ci gox bi. suñu am talent ñoo fi nekk yoo xamante ni maanaam jiile rek lañ wax parce que lutteurs yu bëri ñu ngi fipp di dugg ci gox bi mais buñ fi duggee duñ fi am dara parce que fii moom jili mooy borom. lépp. lii nga gis muy leer lépp mooma ndox ndox bu fi amee mooma bu dëkk bi setee moom la kon boog ah ñun amuñu ak fayam lu dul lum soxla ah woonu ca ñu ñëw ànd ca ak moom. ngay gis muy leer mooma bu fa am itam jëy am kontaan nañ ci moom lool bu ma ko newoon bul fanaan ci kër gi sax du ci fanaan ci sama yitte fanaan. moo tax lu mu ne rek maa nga ca ñoom daal fu mu dem nee baax na li leen itteel mooy jëmm ji moom Djiby Bey mi ngi liggéey ak ki nga xamante ni mooy ancien ministre de l'intérieur ali nguy Ndiaye moo taxit it mi ngi koy wutal ay parrainage yu am solo jublu si ngir waajal élection yi

moom ndax jàpp na nañu ni kat ndaxte lépp loo xamante ni état war na ko def moom de dina ko jëli indi teg wala mu dox seen diggante ak ñoom